ñun amuñu amuñu problème ah critères yëpp critère euh, parrainage critère u caution critère voté parce que man dama jàpp ne nag foo dëkkul mënoo mm, fa nekk maire li may wax euh, sama naataango yi dëkk yenn commune yi nee naa commune de Mbao man xalaatuma fa nekk maire mais sama sac la ña fa dëkk ànd ak man nekk maire parrainage bi nag liñ ci mës a jàmbat mooy depuis président yi on n'a pas un problème avec le parrainage ñu amuñu problème parrainage parce que bu dañuy politique am projet politique présenté ko nit ñi té ñi nekk ci fichier bi 1,5 pour cent wuñ pour jox sen quarante kon ñuy politique mais li problème bi que nous nan lañuy pas contrôler parrainage bi lool moy problème bi parce que c'est la problème bi si bu ngeen le ko présidentiel yi affaire bi lan la woon dañ ne parrainage ñan ñoo koy contrôler def leen bu baax attention dañ ne conseil constitutionnel alors que c'était pas vrai dañ ko def ci locaux conseil constitutionnel yi benn salle lañ dem conseil constitutionnel foofu lañ defee ne moom la ñuy contrôler parrainage ñan ñoo koy contrôler ji ay mi ay ay policiers yoo xam ne daaf lañ nekk Aly Ngouille Ndiaye moo leen di choisir premièrement deuxièmement aussi nan lañ koy contrôler kenn xamul benn écran lañ tiimale rek nga ñëw dugal sa clé USB ñu tourner ne la lii moo baax lii moo baaxul donc loolu la ñuy kaas loolu la ñuy wax il faut aussi démocratie ñu am un jeu franc ñu xam ne kii matal na kii matalul quant à caution bi nak lolou man tammi je ne trouve aucun inconvénient sauf que rek en démocratie nañ xol le l'équilibre le juste équilibre bo xamné ne ñëpp dinañ xamné li c'est normal euh, quant à euh, caution ñun amuñu ci problème li ñu bëgg rek moy GIE clair bu dee gis nañ ne par exemple Pikinois and nañu ñun ñu xamné and nañu ñun bu dee ànd nañoo ñun ñu xamné and nañu ñun ñu dem xol lénen non pas pas seulement pique Nord le département les 16 communes la wax mais pas seulement pique Nord pique Nord vous voulez pique Nord peut-être ni nekk salle bi rek bu ñu la bëggoon ñoom ne pare ñu pare nañu bu 1,5 là 1 1,5 1 la fourchette là, n'est-ce pas 1 à 1,5 c'est c'est 700 800 et quelques personnes moins de 1000 personnes donc là, nous avons ci amuñu problème pour un donc waaw parce que nag vraiment dafa loolu laay wax ne man li ma metti Pikine su ko salaire mënoon faj du ma politique mais ni ma bëgg Pikine mel sama Pikine bi ma bëgg man budget moo ko mën a réaliser te budget nag du lu ñuy jot fin de mois lu ñuy voté la te moo loolu pour nga am pour nga accéder ci foog nga am mandat électif Pikine ni mu mel d'accord mën na nekk banlieue de par sa situation géographique mais warul mën a nekk banlieue ci environnement bi ñuy dund boo ñëwee jàmbatu pikinois yi la lañuy jàmbat wala bu wala euh, école bi daanu na toilette école yi ndox mi cest dafa ne dans les pays en guerre fi ñu yóbbu camp réfugié fi ñu réfugié yi sax en guerre fi ñu am nañ bu dispensaire bu am nañ toilette bu seen élèves yi seen école mais ñun ñi nga xam ne am nañ budget 800 milliards taxaw ne mun te ne loolu rek mënuñu am te suñu réew am jàmm donc loolu tax nag ñu ne dañuy politique ñi ko yor dàqu ñuy jàng gënuñu bëgg gox bi gën nañu tamit am fit nañu am expérience bi ñu ne pourquoi pas ñu proposer suñu programme wan ko waa Pikine bu dee ànd nañoo ñun ñu ànd ak ñoom te loolu defe naa ne nag vraiment waa Pikine ñëpp parce que jooy benn la jàmbat bi benn la ñëpp xam nañu pikin dafa dellu ginnaaw waxuma la sax dafa dellu ginnaaw mais fi mu taxoon romb na sax dellu ginnaaw du Pikine département du du commune de Pikine Nord nag 16 communes yëpp foo dem am na luy metti non man dama ne Pikine waxuma sax maire de la ville président la tu daf fee war a la on est là bu doon pour man rek titre rek peut-être ma toog ne Pikine Nord mais dañ ne koy wax 16 communes la donc 16 communes yëpp bu ñu ko bëggee liggéey kenn moo koy administrer maire de la ville c' est pas que man maa bëgg a nekk maire de la ville mais c' est que dama bëgg liggéey Pikine te loolu pour nga yegg fa pour nga mën ko def avec un mandat foog nga am un mandat bi maire de la ville am surtout que nag on a un maire boo xam ne wax ko léegi affaire pétrole bi peut-être dañu yàpp Aline Sall rek mais moom su doon dëkk dëkk dëkk bu bu am démocratie la day bokk ci ñi démissionné bul fàtte ne moom moom lañ serviroon comme prête non